Vito Cocktail, une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 ma tay la ci gàttu lem de. ay ah, yow yow ma tax su ma la waxee fiis doomu wu yow ma fiis. waaw fiis ak tante yëpp benn la la. benn la fiis. fiis. parce que amoo respect di. yow sa gii bu froissé bi. froissé <laughs> waaw da ngaa froissé. man ma sol lu froissé. Ah. ah dama ne ah dama ah, nii laa bëgg nga koy doxalee. maa ngi nii ah. ci weer koor la ne nag. يا مكة يا مكة مولا زغل مولا نور سني عليك لا لا كوبك سامب xanaa fii eh damaa wóor damaa wóor damaa wóor. waaye la nga fecc ak la nga na bu ko tekki ci man nag ngooñ laa yittewoo. ngooñ waaw gën a yittewoo. ngooñ waaw bàyyi ngooñ laa soxla. dimbali ma ci ngooñ rek ma waxtaan ak moom. ana bàyyi ngooñ wool ko wool ko bàyyi ngooñ. wool ma ngooñ bàyyi ngooñ ñax fi de. eh bàyyi ngooñ a ngi ci biir eh, a ngi dama da maa ah? eh. daa man nii laa ko bëggee nii. c'est fu dem bii. yeeg bu baax nee ci koor. suñ place. <laughs> mbaay mbaay mbaay ah! noo def. nii daal nga koy nga noppalu rek. waaw tëdd rek yu baax nooy def. la ilaha illallah. ah. waaw kay. awa. Mm-hmm. awa. Mm-hmm. bakkan ngay fàttali ni moom lu ko war. Mm-hmm. ah sa bëñ ngay métti. Eh. ah. ah damay ko ay ca ne awa. yow alaaji ñëwee ne ko jaaroon naa fi. bakkanam yi muy xam naa li laa li la waaye yow bàyyi mi nii la mel xi ñun lii moo ñu bëgg a rey xunxunoor de xamul xetam lii de la ñuy dund ci biir néeg yi xunxunoor xamul xetam day yoole xeetam xeeñ na de xeeñ xun waaye yow xet gi nekkoon ci kër gi yëpp bàyyi ngooñ ñëw dollee ko ci waaw ah, lii la ñuy dund métti na trop ay ñàkk sangu gi ci kër gi woor ba ngoon ànd ak xet gi waa léegi ma gis la. ok maa ngi doon dee daa ñëw mu doon yokkee ko rek. Hmm. waaw wow. te te fiis ma gis la waay. yow boo ma waxatee fiis baal di ma wax fiis. waaw ma gis la léegi xullee ko ne faj katu la bàyyi di ma wax xii fiis. waaye nag yow naa tàng xool trop ma gis la ma gis la dafa xew. ma gis la ma gis la ma gis la ah ma gis la fii laa lay gisee. foo dem ci biir. ah. ñu dem ci biir ma gis la. ban façon gis. waaw boo demee ci biir di nga xam ban façon la yow ah. waaw junj ma tuuti rek loo may gisee lan la. ah affaire kii. affaire la. bi bis bis yi ñu doon seetaan télé. waa waaw. moom nga may gis waaw dina ma gis la. te yow pare bu ma yow man ngay gis.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 209 75. Notre site internet www.cefas-du-6sénégal.com. waaw yow kii du sama xarit takkal sa fit takkal sa fit takkal sa fit takkal sa fit xam naa xam naa lan la may takkal sa fit barke yonent bi kii mu ngi mel ni xiin yow kii fii la dëkk jëlal baa mi ba pare xam naa ne kaaw la fii di jëlal baa mi mi ngi jëlal baa boobu buy génn du tàggoo yow li ngay dund ak lu ko gën a pire jàkkaarloo kanamu euh, baay ngooñ bi tourna yam ci gémminu ñànko bi da mel ne sous terrain kii fii la dëkk comme tourna ma ci bunuma numbe bi waaw yow li dund li yee ci gën a ndaw yow de comme yaa ngi dee ba pare muy jàll di xaabar xaabari mu mel ni frontal. yow kii waxuma la frontal bakkan bi mel téere bopp yow lii ngay dund. way waxuma loolu yaa waaye xool na la daa mel nag dalaa nopp nag. yow wi ma daa mel ni nag kii dalaa jox bopp nag sama xarit bi. yow fii man maa fi ñëw di la seet fekk ko fi nee na yaay yi daa taxaw di expliquer nee na daf may doxaan. ah yow yaa ngi doog a wax waay parce que xool yi du xoolu neem. lii de tax may xool mel ni ku may waaj a lekk. man damaa mujj di man kii war na doxaan. <laughs> yow nag sa kanam yi daa mel ni da <laughs> daa mel cee bind na ma regarde tu me regardes. tu me parce que yow kii nan la mën a amee fitu xool la ak ni nga mel temps bi nga nekk bàyyi ngooñ ñaar lay doxaan. oui ma yaa ngi may ñi ñaaw ñëpp xamuñu seen bopp nag. <laughs> loolay wax di nag. ñi ñaaw ñëpp kenn xamu ci bopp papaay Mamour. ah xam nga Mamour sama càmmiñ bi dëkk fii ci ginnaaw. oui papa Dia papaam comme un un. ay waay oh, moo ñaaw papa moo daw moo ñaaw papa kay. Oh. daaw da ki muy àndal. Ah. ci du koor lañ ne nañ bàyyi dagg wàcc <laughs> sama kër gaa ngi toj sa kër gi mu ngi wàcc sama kër gee gën a neex neex waa yow lii lii lii ba jàmm la waaw léegi ba mu la doxaane loo ko nangu mënoon nga koo nangul nag ki lan laa koy nangul kii da ngi toj kër gi ak feccum ginnaaw toj kër bi kii da dëkk ba la jóge ñëw fi indi 7 millions yoo xam ne tegu ko ci kayit tegu ko ci compte bancaire tegu ko ci lenn 7 millions yi daal ni nga koy déggee yow ñun noonu lañ koy déggee dig sama nijaay 2 millions te saa boobaak léegi fere na 500000 dégg nga te bàyyeegut fi mu ne daa génn noon dem wuti ji xaw ma daa lebi xaw ma lu mu def comme moom nee na du bàyyi du bàyyi la dëkk kuy naan ngelaw nag buñ la joxee jàkkri fuux nga koy def man kay loolu ma jaaxal saa de instant bi ñu toll nii waaye saa la moo la moo ko dal kaay ma xamal leen kii waroon ngaa xool ndiggali de ndigg lan ci est ce que mu ngi sangu kii kii kii day laa day laa saafara de yow xam nga ni saa kii da ko jàpp si si gàllaaj saa ki da koo liggéey di kii di mel ne du ko duus du la déglu fi mu ne saa bu duggoon léegi nii nga wax ko loolu yow moom yow moom kër gi désormais fa la ngay toll ci buntu kër ga naan ma soxna awa génn ma loolu moom maa ngir yàlla rek dama la koo ñaan bu si seetaan saa mukk mu see dugg waaw yow man lan laa mënal saa yow kii kàmb la ko tegal de saa mii takku ba mel ne naanaa boogee lu ma ko mënal ah génn ci nga ne nag bu ma ko loon dara nag duma la duma wax sama situation bi may dund kii daal la ngi nii xaw ma ko yàlla yónni la xaw ma lan la ba pare ñëw nag ànd ak ñaawaayam gu rëy goo xam ne gros plan la te ja xoolal jaay ci détail grossiste lay jaay <laughs> kii ñaawam xeetu ñaawam. yow kii man ngay wax xeetu ñaawam. man nga koy wax ah, waaye mënoon ngaa génn ak moom nag. génn ak moom yow nag yow yow yow ku ñeme nga. yow kii. Eh. lu nekk ci moom nag. yow soxal na nag eh, dimbali ma safar bi nag tuuti rek la ko dàqee. <laughs> yaa ngi di génn ak dërëm gaaj <laughs> ah dërëm gaaj tuuti la dàqee kii di bu dee moo ko dàq sax moo ma jaaxal. ah lii yow tamit ñi ñaaw ñi yëpp nañ la. wallaahi kenn xamul wallaahi yow yaa ngi nii. yow ñaata yow ñaata personne yoo xamante ne nga fi identifié sa biir kër gi te waxoo ko de. ñaata personne ñaata personne yoo nekk fii sa sa biir kër. ci ñaata dof. ah génnal ci loolu nag. jànk ñaata dof nga yor bàyyi bàyyi bàyyi sama bàyyi sama nag bàyyi sama yow yaa ngi yor ay autoroute à péage yow koo xamante ni boo ko gisee boo ko xoolee da ngay daw. Ah, ah xam nga génnoo ci ñooñu nag génnal ci li nga nekk nag. xam nga laa namoon sax nekkuma fi de fii de laa ñëw taxaw mu naan maa ne noo tudd ma ne ko man tudd. Fatou yaayee na ko Fatou laa tudd waa tiit waaye noo jongomaa ne ci koor gi yow est-ce que yaa ngi woor yow bàyyi ma man ko yow laa lay ba xam yaa ngi woor kaan jóg ma tubba la dëxin bu dëxin bu am limon ak kaan wér nga loolu mu indi si dama doon xool ba xam woor nga nag damaa woor mën ngaa demaat dëxin amu fi nag damaa woor nag mën ngaa jug te tàllal nag <laughs> mën ngaa dem de waaye di nga ñëw sama kër pour ràcc non non ràcc mu dellu koor gi yow damay jaamu yàlla yàlla rek laa bëgg ak waa këram yàlla rek laay topp na ngay topp ni koor gi yàlla rek ay topp